ngi tudd Diène Diouf di président commission éducation fii au niveau du conseil municipal de Fatick. ok voilà donc euh, jërëjëf waa Mindiss TV euh, ñu am mbégte teeru leen fii tey ci salle des banquets bu comme mairie de Fatick euh, chaque année avant école di ubbi xale yi avant ñuy ñëw mairie Fatick dafa am pour habitude. di joxe li ñuy wax les fournitures scolaires yi nga xam ne ci fonds de dotation yi lañ koy jële alors tey euh, ñu ngi nii di def répartition yi école bu nekk convoqué nañ leen tey à 16 heures directeurs yi dinañ ñëw ci li nga xam ne moom la ñu laajoon mairie jëndal leen ko muy expression des besoins loolu la mairie def nii ba indi ko léegi les agents de la comptabilité yi nga am ñoom ñoo nekk euh, département finance Euh, ak euh, Adjuma Sarr ak euh, le personnel qui est ñëw di ñu jàppale pour la répartition de ces fournitures là fi mu nekk nii am na fanweeru structure ak ñaar fanweeru structure ak ñaar yoo xam ne tey ci ngoon seen responsable dinañ ñëw jël fourniture yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci fonds de dotation yi pour mun ko jox xale yi muy donc lu am solo alors ku ko gis xam ne école privée école publique préscolaire élémentaire ñëpp a ngi ci biir franco-arabe toutes les structures jël nañ leen en charge au niveau de ces fournitures la te loolu habitude commune bu Fatick la. Mhm. naturellement naturellement mënuñu tolloo parce que nag ci biir dafa am école yu mag ak école yu ndaw école yu mag mooy ñi nga xam ne par exemple dañu am ba quinze muy Moustapha Beydi Ba alors boo ko seetloo répartition bi du école yi la ñu koy euh, répartiral mais élèves yi c'est-à-dire école bu nekk xam na ñaata élèves ñoo fa nekk bu ko defee en fonction du nombre d'élèves ci la ñuy jël montant bi nga xam ne ren mi ngi nekk ci quatorze millions fukki million ak ñeent ak genn wàll quatorze millions yoo xam ne moom la ñuy jël répartir ko élèves yi naturellement école bu ëpp ay élèves yow yaay ëpp montant loolu moo tax aussi ni nga gisee loo yi ni mënul tolloo waaye xale yi ci liñ leen jagleel ñoom ñoo ko tolloo muy xale public muy xale privé ñoom ñoo tolloo li nga xam ne moom la leen mairie jagleel hmm. voilà très bien comme niñ koy waxee rek à chaque fois euh, lii euh, boo gisee mairie Fatick di ko def ak son maire Ba dafa bëgg toujours ñaax wala jàppale slogan bi ñuy wax ubbi tey jàng tey li tax ñu koy joxe veillu ouverture avant xale yi di ñëw pour que directeurs yi dès xale yi yegg si rek au moins ñu am lu ñu mën a teg seen loxo ko muy bic que muy kaye ñu mën a commencer seen jàng kon ku am jumtuwaay yi mën nga tàmbali waaye nag ni koy waxee à chaque fois parent yi lii ñuy jox xale yi nañ ci tëyeegum lépp loo xam ne war nañ ko ci dolli ñu dolli ko ci waaye au moins lii ku amagul dara tamit sa xale mën na tëye ci lii sa xel dina mën a dal comme ça moom mu mën a jàng bu ñu leen ko joxee tamit na ko parent yi aar parce que loolu aussi lu am solo la ñu leen di ñaax nag ñu gën a jàppale xale yi ci njàng mi ci kër gi lu am solo la mairie Fatick mu ngi góor góorlu di tabax ay classe di defar ay mur di joxe fourniture lu teel lépp pour jàngal xale askanu Fatick ndax ñu mën a tekki ëllëg voilà euh, foofu moom euh, daanaka euh, jéego yi nga xam ne moom lañ ci defoon pour euh, élèves CM2 yi mën a continuer disposition yooyu yëpp ñu ngi ci école yi parce que mairie Fatick par rapport ak feebar bi dafa joxoon ay dispositifs lave mais yoo xam ne ñu ngi ci école yi raxasu loxo yi sol masque yi tey kenn mënul wax ne yorul masque naam état bi am na lu muy waajal am na lu muy préparer dotation yooyu bu yegsee fekk li nga xam ne moom lañ yor tamit wax dëgg day tax mu gën a dëgër kon aussi parents yi nañ fexe xale buy ñëw école na sol masque Euh, lu lu lu am solo lay doon voilà jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Mindiss TV si seen liggéey bu rafet di vraiment encouragé gis euh, télé bi euh, yàlla yóbbu ko ci kaw a kaw ak lu sut yar seen njort jërë ngeen jëf